courant dafa mel ni ceeb ak leneen lu nga xam ne dafa bokk ci dundu doomu aadama kon book ñun bu ñu yàlla dimbalee ba ñu nekk foofu ñu war ci mën a jàmm yàlla ñu ñaan ngeen ñaanal ñu kàttan boobu ñu mën ko am comme fii bërëbu lislaam la fii alxuraan lañ fi def kon boog loolu daal mooy soxla yi nga xamante ni amoon nañ ko fi di wax ne lii ñu indi nag xeeb nañ ko ndax 75 tonnes de riz la 150 cartons de de lait am na savon am na gant am na gel hydroalcoolique lépp lu nga xamante ne nii yaakaar nañ daal dina mun a tax ba nga xam ne nit ñi dinañ mun a toog boole nag ci effort yi ngeen doon def ndaxte xam nañ ne fii mënal ngeen seen bopp yéen a ngi demal seen bopp mais lii ñu def dafa nekk rek loo xamante ne nii lu ñu bëggoon mu nekk suñu participation si lii nga xam ne loolu ngeen di def ndaxte ñoo bokk diina gi ndaxte ñii it suñuy bokk lañ parce que Turquie coopération turque ak Sénégal dafa rafet. Euh, yaa ngi naan lii xeeb nañ ko waaye xeebuwut ndax jëfin ji la fa ngeen ko doon nose nekkunu fa kenn nekkulunu fa ngeen toog di nose ba seen xel xalaat ne war ngeen a ñëw fii ñëw gi bu ngeen ñëwoon indi kilo suukar képp doy na suukar. wolof nee na nag wi yaa ko moom kum doyut buñ ko tojoon fejar ko jox la nga lekk doo suur kon nag jërëjëf ñoo ngi lay ñaanal barke ak tawfiix di ko ñaanal ñi nga àndal ñëpp kenn ku ci nekk la muy liggéey yàlla na ci yokk barke gën koo yaatal gën koo suqali ñool ñool ji bari na yàlla na yàlla musal leen ci feebar bii nga xam ne moo fi nekk ba ñun ñëpp ñu tëj suñuy gémmiñ yàlla na ko fi yàlla jële bu koor gi dem yàlla na ànd ak moom dem yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko def ànd bi ngeen àndit ñëw toog di ko ànd ci liggéey ba ànd yooyu yàlla na ko yàlla gën a def barke sunu mbokk mi itam nga xam ne mu nga jóge ba Turquie man dem naa fa dem naa Turquie ñaari yoon yoo xam ne gis naa nañuy jàngaleek ñuy jàngeek nañ fanke xam-xam waaw def naa fa lu gàtt-gàtt ñaari voyage yoo xam ne lu mel noonu moom fa yóbbu Euh, gis fa it yu yéeme yoo xam ne war nu ko fa ndax dawla islamiya bi mu jógee fële ca al abbasiyuuna dafa dem turki mboolem li yonent bi yoroon ci ay bagage ak ñoom seen yooyu la ca ëpp ma nga turki kon am réew moo xam ne mi yàlla may leen ci wàllu googu may leen ci mbokk ma jóge woon Madina Abu Ayyub Ansaari ñëw fa indi leen xam-xam yal yàlla fay leen sàmm leen aar leen ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى École euh, euh, étudier, c'est très important et on est une école coranique encore une fois euh, pour le bien-être euh, et pour le bon futur de nos enfants. Donc on est très euh, honorés et on remercie beaucoup à M. Biquet qui nous a permis de, contribuer au peuple sénégalais dans un endroit comme ça. Ça nous donne plus de l'honneur que produire de l'énergie. Voilà.